dañ doon jàppale président Macky Sall ndax olof yi ñoom ñoo wax deret su jaxasoo xaste jeex mu am kenn koo xam ne dafa takk ci président Macky Sall yàgg ko gëm nekk Baye Fallam ànd ak moom ba mu mettee muy honorable député Farba Ngom tey mën naa wax moom moo ñu dugal ci politique pour ñu jàppale ko ci jàppale xaritam son excellence la président Macky Sall. far ba xam naa ko bu yàgg te boobu jëlagul sama sœur koo xam ne tey ajaa Soxna mbay ñoo bokk ndey ak baay mu jox sam papa cër bëgg ko boobu président Macky Sall moo nekkoon premier ministre mais am na lenn loo xam ne dafa doon jaar ci loxoom jëm ci communicateur traditionnel yi mais su doon joxe loolu sax day woo communicateurs yi ñu fekk si ko wante su yegsee ba ci âge Mansour nag daf koy ne yow dama lay fekk si Gaston Mbengue di ko tuddee góor gi ay lamb suñu waajur âge Mansour ñu ngi koy nuyu di ñaan yàlla guddal fanam may ko wér su yegsee ba si moom ne ko Hadj Mansour man maa lay fekk si mu def ko papa sam papa tam doomoo ko te boobu yii yëpp xewagul jëlagul sun sœur kon Farba ak sam papa relation boobu la ñu amoon bu ñu gañee élection yi ba tey buggoon nañ def benn fête mais yàlla mi ngi koy soog dogal jaarale ko nag ci kenn koo xam ne sama frère la sama doom la

Yalna yalla yàlla yokk muy sama wajur mhm. donc sentir présence bu baax. bu bu baax a baax a baax Anta Dieng tey lii bëggoon naa trop mu fekke ko ndax moom su fekke woon dafa amoon relation yoo xam yu particulière la ak honorable député Farba daf ko def ko des fois dem ko damay ci yoon bi naan tey lii su ko fekkee woon dina kontaan trop ndax far ba dafa doon kenn ci moom bëgg ko mu doomoo ko far ba tam nekk kenn ci man tey du relation goro moo ñu boole wala yeneen relation tey far ba sama fraire la man ak moom dañu bokk ndey ak ma koy xamal loo xam ne frère du ko ko xamal ma koy xamal loo xam ne xarit du ko ko xamal kon tey politique bii mu dugg tam ma xam lu muy bañ ak lu muy bëgg loolu tey moo tax ma gën a am defi boo xam ne chaque jour damay bëgg rek di dem ci kanam ndax xam naa Farba nitu défi la te nit koo xam ni gagné rek la bëgg victoire waaw Wally sekk nag lu ñuy xaar ci bés bi ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu ci ci jàmm ndax tey Wally sekk mën naa wax tey ci bés boobu dafa défier waa communo HLM. loolu nag mu def vidéo ne waa commune HLM xaar leen ma ak waa sa dëgg-dëgg dinaa ñëw te su ma ñëwee HLM dinaa toj mouvement bi rajax waa HLM tam def ay vidéo waa mouvement sa dëgg-dëgg ak Amazone yi delloo ko ko ne ñu ngi lay xaar du loolu nga yaa défier suñ coordonnateur ne laajoo ñu Farba Ngom keroog ba mu ñu défier ba mu ñëw HLM dañ ko mujj xajal pour mu dugg fi kon tey daf ci am yéene yéene boobu mu am nag man tam ma am ko yàlla na ko yàlla mottali ba waa commune HLM xam ne tey fête bi seen fête la jeunesse su Sénégal xam ne tey fête bi seen feet la tey ñun ñëpp ñoo ko moom di ko sargalee nag son excellence le président Macky